Euh, dama la bëgg a wax Benoît Sambou ban ban ban ban pression la mën a teg président Macky ba mu nangu loo xam te ne ëllëg défaite la koy jural c'est-à-dire c'est c'est insensé euh, même bu fekkee ni ngi wax nii naan ñu wéy euh, dafa forcer boppam nangam ku xam président Macky xam ni amul kenn ci coalition koo xam te ne mën nga ko tenir tête ci façon boobu noonu su demee ba porter choix am ci moom kon dëgg bu wax ni président Macky moo bëggoon lu mel nii am Ousmane Sonko gagné ko jiital <laughs> kan moo ko fi jiital ñett la ko xam nga mais kon du moom xam nga ren ji gars yi dañ bu neex Ziguinchor boo xam te ñaari jeune ñoo woon jogante te benn jeune bi sax ba mu jàppee ni Doudou woon nekk candidat benn bokk yàlla déclaré candidature am ba ñu si la déclaré candidature am ah parce que xam na ni bu jogante nag Doudou du dakay gagné xam nga la gën a ñaaw la gën a ñaaw hmm. loo xam te kenn mënu koo rafetlu mooy gis nga jour élection yi mu ngi fekk Ziguinchor quartier bu ko école Moussa Baye xam ko baax. waay parce que fa nga dëkk. gis nga plus de huit L200 benn bi dafa fekk dël ak ay ngandaay ay ambulance ay jaas yi kenn xamul ay yattu kel yi kenn xamul oto boobu police bu Ziguinchor ko ñu ngi may dégg ñoom ñoo ko saisine si bunt école Moussa Baye koñ bu dafa nekkoon su menace. déet euh, ñoo seen L200 ah. def loolu. mais waa Kër Sonko ñoo ko def. comment da nga ci ay preuve ñu may dégg ñu ngi may man maa ngi fa taxaw maa lan mooy firndeel ni ñoom la. non ñoom la woon Sonko ak kay Sonko ak gàddu koo mi neef la ko suñu soo ñoom ñoo nekkoon tout bu kot bi du wël menace koñ bi koñ bi kenn ñi moo gën pour dem voter. menace bi daa jaaw me fan. menace pour ñu dem voter kan si si si si si si si dara jaay ma fen comme yëpp da nga koo da nga koo menacé kenn mënul dem vote ñu attaqué kër yaay Doudou Ka yàqati fa. mais kon da ngeen a bëgg a saltel defet nag. non du ma saltel defet man victoire jàmbur bi ngeen bëgg a wax yooyu bu ngeen ko amoon lu tax fësal leen ko ci jamono jooju ngeen toog ba tey di ko soog mais taxal waa DT waa DTV seen correspondant ñi fa jëloon Doudou jëloon Doudou dama ne gis nga man ba may ubbi sax dama ko félicité si victoire bu mu am. dama félicité mais non félicité nga ko mais après bu amee ay fee dama koy wax. loolu fee la ba ñëwee kër jàmbur. attaqué kër jàmbur yàqati koñ bi jàpp petit frère Doudou bu mu bokk benn ween mi jibi dañ koo ba urgence nekk. ambulance sapeur pompier bu Ziguinchor ñu may dégg ñoom ñoo ko jël si. ba tey ji may wax mi ngi urgence. li nga bu dee wér na lu leen teree porte plainte. mais dama ne pour ñu leeral loolu dama ne. jibi dañ ko dóor ba mu nekk résidence lu ngeen ci def laa wax ci wàllu yoon pour wane ni dëggantaan li ngeen di wax ni fee la lu am la ci jour élection yi dañu bëggoon euh, ñi ànd ak Doudou Ka bañ dem voté ji te loolu ci waa Ousmane Sonko loolu vidéo bu ñu ne ko André mën la vidéo léegi la sama portable déedéet man kay man mais après émission bi naa la vidéo man dama yoon man dama bëgg wax ni waa loolu am na ngeen constaté constaté ko lu leen yi nee naa seen benn seen benn oto L200 bu fekk dal ay commissariat police bu Ziguinchor ñoo ko saisir. rien ne justifie que ni la. rien ne la justifie ba a wax ni rek mais amul ay éléments probants yuy wane ni ñoom. waaw dëgg ma déglu. oto bi bëgg a di saisir da ko saisir ak seen chauffeur ñoom oto bi lañ jàpp ak chauffeur bi yëpp oto bi ak chauffeur bi lañ jàpp yóbbaale kàcce bu ko kenn ñemewu dem voté. léegi chauffeur boobu kan la. kenn ñëw ko voté. est-ce chauffeur boobu ñoom mooy firnde la non c'est-à-dire ñoom. non non ma déglu ma may tey wax la. xam nga bu ñëwee Sonko moom Sonko moom lui-même def ngan di am. jour ba bi 6 heures nga xam te vote sa jeexagul def ngan di convoi am romb bunt kër yaay dudd romb bunt kër yaay dudd. Hmm. ak ay am gars yi du yuuxu. kilifa bu toll ni moom du waajuram bu jigéen mi ngi foon toog soxnaam mi ngi toog ay yàqu yaam ay magu yaam ay nijaam ñëpp a ngi si koy toog ay xayitam ay andi jàmbam ñëpp a toog duwal naan duudu deena suul ko duudu deena suul leen ko kam moo dee ba ngeen suul mais loolu amul kenn mënu koo rafetlu ah ñëw bu jàmm ay waajuram ne fa ah ngeen duwal leen ko te Sonko mi ngi woon si ful bi Sonko ba muy waaye ba ñuy excuse vertical 12 juste ot moom moo taxaw dañuy pour combat bi taxaw loolu may taxaw dem ne attaqué kër jàmbur. ah non quand même dem attaqué mais dafa ndànk. mbedd ci kër gi. waaw taxaw noonu la <laughs> duuru ka moom foofu dugg si biir kër gi dóor fa ay xeet ba wax man waxuma la sax petit frère douze bu ñu jàpp dóor ko mu nekk urgence bi ji bi waxuma la kooku de ambulance bu Ziguinchor sapeur pompier ambulance bu Ziguinchor moo ko jël si. dañoo dóor ba dóor ko xam te dëkkandoo dëkkandoo si bi ba gaañ ko si tànk waaw léegi loolu ngeen bàyyi ko noonu defu leen ci benn intenté wul ci dara luy wane ni da ngeen dem ci kanamu yoon pour mbiri leer mais yomb pour ngeen wax ni waako dëkk bi ba tey tànk bi day suux bekk lay doxantoo ba tey ji ma xam bekk lay doxantoo mais amul rien ne prouve que ni ñooñu ay élément Ousmane Sonko c'est-à-dire loolu la Sonko ay 18 mu may dégg man dama solo mu may dégg ay élément ñu may dégg moo jiite conférence ay ay 18 jàpp ni moo gagné def ngeen di confant mais la moo mu tax aw benn aw benn quartier la moo tax mu mu mu mu taamu Bukot taamu Bukot fu du dëkk la moo mu taamu foofu ah ba pare xale yi du wëy ñu ànd ak ñu wëy ah ah mënuñu wëy seen beneen wëy kon sans wëy yi mu ta wëy du sax ko wëy la mu tax wuy ay wéy loolu yàgg nañ ko ci ay sànq la mbaa waaw su leen ko du wëy mais du wël ñëw ba koñ jàmbur du ànd ak ay xale ngeen di wël ah? ah moom songo mu ñàkk fay woo nga xam ne amul benn personnalité ci boppam xam nga duwa non maa ko wax dafa ñàkk fay la duwa duwa non man maa ko wax DPS bi mooy moom DPS bi moom fu mu xam dafa dem duwa duwa dama ne dama ne man fu mu xam dafa dem moom bu joxu Macky bu joxu président Macky Sall te man du ma ko cën bu joxu président Macky Sall respect man du ma ko jox respect est-ce que dëgg bu dama ne bu joxu président Macky Sall cër man dama ko jox cër non feneen non feneen pas fii non c'est non wax man man tribune bi waaw tribune bi waaw non da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may da nga may déglu waaw xaaral xaaral rek Coly ma leeral dara dem xaaral ma leeral dara rek ñu dem Coly di ma déglu waaw rek waaw di ma déglu di ma loolu moo tax ma woo di waaw waxama dégg pour pour sénégalais yëpp dégg la waxama dégg bàyyi la xel waxama dégg déroulé laaj la moo tax mais dama ne Euh, one est on est des sénégalais mën naa nangu ci seen langue politique bu leen neexee ngeen waxantu leen neex mais tribune bi pour ñi may bàyyi xel non duma ci bëgg écart de langage loolu dama bëgg nga nangul ma ko ñu dérouler su la neexee nag boo génnee feneen ak yooyu amul problème mais fii man damay bëgg ñu wax ci xel wax ci lépp te duñu saaga duñu def ay écart de langage loolu dama la ko ñàng mais ma ko ñu avance leneen li mooy dama bëgg in damay insister ci loolu su dee ni dëgg la ni ci jour élection yi dañu leen attaqué gaañ ci rakk du Ka def ko comme li nga wax yëpp dama ne jusqu'ici lan moo leen tere yóbbu mbir yi ci kanamu yoon pour mu leeral ni effectivement ñi ko def ay nañ Ousmane Sonko Cissé waay gis nga loolu dina ko yëpp si kanamu ah. loolu dina ko yëpp si kanamu yoon parce que ku jibi hmm. ba tey jibi mi ngi résidence yaa ngi dégg bu baax baax loolu si man li may wax je suis franc hmm. yaa ngi dégg bu ñun du nekk si état bu sérieux mu am ay benn benn sagaw yoo xam ne tekkuñu daal démb ak bàkki démb bu ko soxla Sénégal yëpp bu ah. jàpp Sénégal yëpp bu dee Ousmane Sonko wax de am na lu mu tekki de ok yaa ngi dégg présidentiel bi mu génne sëñ bi kii man téeméer boo jël fukk ak juróomi ñoo ko jox sëñ bi léegi ci élection locale yi ñu génn sëñ bi te Ziguinchor moom wan na leen ni fi mu ne nii te Ziguinchor wan na leen ni yéen yéen maanaam li ngeen doon woote woo ci poids ni da ngeen a am taxawaay moom wan na leen ni tey moom moo fa ne wan na leen ko gis nga dama dama lay wax benn euh, affaire euh, euh. dama lay wax benn affaire mooy mënul nekk di préparer près de campagne. di préparer campagne nekk si biir campagne. mu am ay nitu Sonko. créé benn mouvement politique parce que mouvement politique laa ko tuddee. Hmm. xam lan sàmm jikko. dem sa plateau télé sàmm jikko xam lan. waaw ah. sàmm jikko xam lan. mais seen mouvement amul kenn xayma ay ñoom. ànd sàmm jikko yi xam ànd sàmm jikko xam suñu mouvement. affaire homosexualité sont des politiques masqués. politiciens masqués. dem si benn plateau télé en direct bëgg a daane nguuru Sall ak bëgg a yàq image du président Macky Sall fii Sénégal dem nga xam te ñoom ñu fa nekk ñëpp ñëpp xam nañu Ousmane Sonko moo ne seen ginnaaw moo leen boot ñu fa nekk ñëpp ay sagaw tekkul daal yu mel ne ay dàmbu ñoo fa nekk bëgg sonal ñëpp yor seen lami bëre du wël taxawal fu nekk mais justement xaar xaar da nga dugg ci foo xamante ne non non di nga ma may ma eggale waaw non di eggale mais